mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen àndax ñun si rajo Rewmi FM tey ñu am ci mbégte bu yaatu itam di ci dalal ma Madiop Diop nekk euh, maire bu Grand Yoff monsieur ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ni ngi ñu nangulee invitation bi. bon maa ngi lay fay di la remercier aussi si ni nga ma invité aussi ensuite di nuyu auditeurs auditrices su Rewmi FM yëpp. ñaan yàlla émission bi aussi. li ñu si bëgg yàlla si yàlla def mu nekk njëriñ pour Sénégal yëpp mais rawatina Grand Yoff. monsieur le maire rawatina Grand Yoff tey xiin bu njëkk wala sax taw 84 millimètres tey li nga xam ne moom moo jëm ci taw bi askanu Sénégal ñu ci bari tey ñu ngi ci ndox bi lan mooy si sa xalaat bu njëkk en tant que maire. bon xalaat bi si njëkk mooy état bi war na revoir aatam euh, politique d'assainissement parce que soo déggee li ñu def si ay milliards assainissement da est-ce que loo def plus de soixante-dix et quelques milliards presque ay cent milliards et quelques ba léegi ndox nit ñi nekk si biir ndox bu xiinee sax ñëpp tiit taw bi taw keroog nekkul taw bu fort trop trop trop trop doon na gën a foor noonu mais Grand Yoff exemple fi yëpp fépp inondé woon kër yu bëri yàqu na matériel yu bëri yàqu na donc pour man état bi war na revoirate politique d'assainissement parce que assainissement mooy réew xam assainissement pour eau pluviale wala assainissement pour mooy réew dëkk mu kenn mënu ko defar te assainissement bi baaxul donc état bi war na ko defaraat moo tax ñu war a xeex ñun pour ëpp ay député assemblée nationale. mën a régler problème boobu. voilà pour mën a pas mën a régler problème boobu mais pour mën a pour mën a exiger bi muy def mu xaalis fi ñu koy jël ñu ko fay dugal. li ñuy wax lépp bu ñu ko fa defoon même bu jeexul dina wàññeeku franchement maintenant li am solo mooy je pense que Macky Sall le président Macky Sall du moins gis na affaire yi. gis na ne Sénégal sonn nañu déjà si dundu géeg lépp ndox mu ñëw ndox mu ñëw gën leen a doggali donc il faut mu ji ay matuwaayam wax ak ay ministre am wax ak docteur ONAS mu ji ay responsabilité fexe ba lépp loo war na ko def taxawul askan ñu taxaw leen léegi taxaw rek moo si des waaw léegi taxaw rek moom moo ci des gis nañ fii itam ministre bu yor wàllum assainissement gis nañ ko mu dem doxantu sa Kër Massar nee na li nga xam ne moom moo jëm ca forêt bu mbaaw ba am maraîchers yi nga xam ne ñoom ñoo bloqué mbir mi moo tax ndoxu Kër Massar bi sax demul kon dafa mel ni problème bi am na foo xam ne lajj na fa. non bu mu ko bu mu ko bu ko jox bu mu ko bu mu ko wéer ñuy def culture maraîchère bu mu ko bu mu leen ko wéer parce que loo loolu mënul bloqué ndox mi yëpp bañ a dem. Grand Yoff amul ñu def culture maraîchage te ndox mi te ndox mi solo nañu am na feneen am am am ñoo xam ne defuñu ko te ndox mi sonal na du loolu c'est mbir bu amee bu kenn jalax sa morom ki ko war a jël na ko jël assumer assumer ay ay responsabilités am ba bu ëllëgee nit ñi jàppale ko mu ñu génn si guute gi li am solo mooy li ma wax rek politique d'assainissement bu Sénégal moo des Kër Massar seen ndox ëpp na mot na at foofu am ko yoo xam ne ba léegi ndox maa ngi fa. boo xiinee sax ndox mi bale si suuf nit ñi am nañu pas de responsabilité parce que dañu fekk foo ndox nekkoon ñu dëkk fa mais état moo ko nangu moo ko nangu bàyyi leen fa. mais ko bàyyi leen fa ba heure bi nañu fexe poli politique d'assainissement bi ñu def ko il faut ñu am expert Sénégal ñàkk ko ñu defal ñu ñu defal ñu plan d'évacuation eau yu fiable état exécuté ko mais man xaw ma est-ce que ñoom bu ñuy def programme yi dañ si boole des experts avec. avec des plans d'évacuation eau eau pluviale mu bu bu bu bu bu bu bu leer xaw ma xaw ma dañuy ñëw rek. wala taf yëngal nga jàpp yow gëmm rek di dagg. Mhm. non yaakaar mais ba bu ko ay études avec des experts mu leer ñooy leen lii ngeen di def diamètre diamètre moo baax pour ay tuyaux diamètre ngeen di dugal pour man bu ko defee ba pare du am problème. état am na responsabilité. mais yéen itam maire lan mooy seen responsabilité ci li jëm ci wàllum inondation yi seen gox surtout gox bi di Grand Yoff waaw ñun suñu suñu bi jiitu mooy avant ñuy taw dañoo war a curer caniveau yi. def ngeen ko def nañ ko boobu moo jiitu parce que boo curéwul caniveau yi ndox mi mun na ñëw mais ni muy demee du gaaw ñu dañuy curer presque un mois avant deux mois avant bu desee ay un mois ñu raxasaat caniveau yi. beneen bi aussi mooy bu tawee wa bu tawee ba ndox am avant muy taw ñu ut ay moto pompe teg ko di xaar am nañu quinze moto pompe. Grand Yoff fii yoo xam ne dañ ko ut teg ko avant nawet bi li des mooy bu tawee ba ba ndox mu dugg si kër yi nga ñëw rek àll ñu manque nga mën bu mu tawee rek la ñu préposition ay moto pompe si kër yi amuñu as moto pompe quinze moto pompe dana si Grand Yoff le maire Barthélemy mayaat ñu encore 5 motopompes muy 20 donc yooyu 20 motopompes dana si Grand Yoff dañ ko tas si ay si kër yi. ay secteurs allez bu nekk am au moins ay benn motopompe kër yi di ko awante pour mu dem. beneen aussi mooy maire bi jël tànkam dem seeti nit ñi wax leen massa leen parce que même bu su mënul dara aussi mais jëmmam mun na dem na nit ñi massa xool situation ñu xam ne li ñuy dund ñu ak ñoom ñoo ko bokk dund ba ñoo bokk dëkk bi. dem ma fépp mais ëpp si Grand Yoff dem naa fa. Mm-hmm. donc sama ginnaaw kër fi moom mu dese ak xaar yàlla. gis nañ itam ndox bi amoon ci booru jumaa ja ni mu baree woon mais dafa mel ni ak seen rapidité moom moo leen tax ngeen mën a hmm. évacuer ndox bi mu gaaw. Grand Yoff na. Hmm. Grand bu tawaan six mois ndox mi du génn du génn mbedd six mois day verte si kaw bu tawee dix ndox mi dem am na avancement. parce que station pompage bi nga xam ne xalifa moo ko tracé woon président Wade ñëw yàggali ko moo ñu may avantage boobu donc mais pour man système bi Grand Yoff bi sax moo nañ ko essayé def yeneen secteurs yi. en attendant ñuy am solution définitivement pour man loolu mën na nekk parce que fii tey bu tawee lu mu fees fees une dix heures de temps ndox mi dem parce que daa am station pompage. am bassin de am bassin de rétention moo tax. Mhm. station station pompage bi lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu manque su ndox da koy sànni si bassin de rétention loolu moo tax Grand Yoff ndox du fi toogati mais balaa muy dem dina lor ay kër te dugg si kër jàmbur yi yàq seen meuble yàq seen lépp xam loolu métti na. ku jënd meuble am chaque at mu changé meuble chaque at mu changé sànni lépp parce que day yàqu loolu dafa métti. kon ci xayma mën na jàpp ni tey euh, taw bi ba mu lu njëkk mu ñëw ñaata nga euh, répertorier wala nga recenser ni ndox bi tey nangu na seen kër wala indi na leen jafe-jafe. ëpp na 1000 maisons ëpp na 1000 maisons te loolu na ba pare seen BRT bi tamit ni ñu ko defaree baaxul BRT moo ñu gën a sonal parce que ndox mi yëpp yi doon ñëw dafa gën a yokku amul fu mu jaar. waaw ah, parce que koñ yu bari presque baare nañ ko pour. ñu génn amul fu mu ndox mu jaar yëpp dafa déversé wu si Grand Yoff fi seen BRT baaxul il faut ñu xool ko ba pare def ay projet yu mel nii nañuy boole commune bi si lépp xam nga boole. sollicité wu ñu leen. laaj nañu suñ ñëw nañu indi ñu plan ne lii la ñuy def Grand Yoff ñu waxtaan si mais tey BRT bi su paree dañuy séparer as Grand Grand Yoff station ak ak ak l'université dañ ko leen séparer mënuloo jóge fee traversé na te ba pare tali dafa ndaw ñaari oto xaj ñu fi bu ñu déglu woon ñu def loolu Sénégal seen pont Sénégal 92 pont de l'émergence bi. waaw mais baaxul. ah lu tax baaxul. déjà boo demee nii dagg na taw bi dagg na ko. deuxièmement aussi cité millionnaire dañ ko fermer carrément. grave léegi benn sorte nga am génn nii pour dem parcelle. parce que plan bi ñu joxoon ñun ak bi am c'est différent boo demee pharmacie Patte d'Oie mënatoo yëg pont bi léegi. te amoon na tali da nga mën yëg pont mais plan bi ñu jox ñun ba ñu valider ak bu ñu réaliser bokkul xam nga gis nga ñun du ñu ay maire fantôme ñun ay maire lañ ñu élire ñu légalement le président Macky Sall mooy suñu président dañ ko nangu parce que man 2012 moom laa voté ñun bu nekkee ay maire ñu fal ñu nañu jox suñu cër di waxtaan ak ñun lépp moom xamu ko lépp ay ministre am xamuñu ko nit ki fu mu dëkk moo gën a xam. boo ko boole li ngay def ba ñu xool ay affaire coloration politique je Sénégal mën na avancer. Sénégal moo yàq mbir mi loolu moo ko yàq. loolu moo Sénégal li ko yàq mooy dañ naan maire bi bu liggéeyee lii day am bilan du baax ci pouvoir bi mais ku ne da ngay état bu ne da ñaan yàlla maire bi maire bi duñ teg mu liggéey pour dëkk bi avancé lu ma lu mu liggéey di dugg ci bilan Macky Sall bi nekkee président daa liggéey nangam te bu ñu jàppalee ñu liggéey ko dañ koy wax. nit ñi xam ne Macky Sall moo defal nangam Macky deful dara Grand Yoff deful dara ah, Grand Yoff léegi xaaral Macky deful dara Grand taw bi kon euh, ñëw ñu jàppale leen. non dama ne defuñ fi dara kenn ñëw fi dégg naa dem déedéet ONAS dama dem visiter bassin bi. avisé wu la. yëguma ko sax ma. ah mu nar ñëw sa gox te waxu la. yëguma ko sax ma mun naa am benn courrier gisuma courrier peut-être. parce que di campagne mais yëguma ko dañ ma woo après wax ma ko. mu ne au moins na adjoint au maire bi dem parce que moo gën rafet mu dem ak président ak euh, chef service technique bi ak SM bi dem foofu pour assister au moins ñu marque suñu présence. pour mu xam ne ñu aussi fii ñun ak moom ñoo bokk liggéey. mais quant à président Macky Sall deful dara Grand Yoff te yaa ngi ma doon wax ni amélioration am na ci mbi nga xam ne moo jëm ci assainissement bi. kon kan moo ko def Abdoulaye Wade c'est le président Abdoulaye def Macky Sall benn mot pompe la ñu may. benn benn pompe la dugal si si station bi benn pompe loo fi dugal am na quatre pompes benn la dugal benn mur bi affaissé woon mu tawaxaat ko jeex na dafa leneen le président Wade moo moo ko yegg Khalifa commencé woon mu wàcc mille le président Wade ñëw yeggale ko ak le ministre Babacar Ndao pour Babacar Ndao temps boobu mu nekkoon ONAS <laughs> ñoo ko yeggale ay doomi Grand Yoff ñoo ko liggéey mais Macky Sall daf fi dara la fi deful. ok nii nii nii nii actuellement ñun au pré temps présent waat dañ daan am ay hydrocureur bu tawee dañu koy envoyé. amul daa am kër yu bëri yoo xam ne am dañu am fosse. waaw dañ koy manque manque ndox yi amul joxuñu ñooy loué ay hydrocureur di fay par di fay par voyage dañuy fay chaque voyage commune bi day fay chaque voyage. xamante na commune commune bi ah est-ce que attan na loolu. attanu ko mais amuñ choix amuñ choix dañuy leb rek di dugal rek amuñ choix. on n'a pas le parce que mais mënoo rendre population ñu nekk si biir ndox mi. di patauger di patauger seen tànk yi nekk si biir seen force yi fees di génn mais mënoo ko sànn il faut nga trouver solution pour ñu génn si ndox mi. à tout prix nga koy def à tout prix foog li am solo mooy ndox mi dem nit ñi xaw a noyyiwaat tuuti. donc loolu baaxul ñu instant yi maa ngi wax préfet le sous-préfet mu wax président wala ministre de mu envoyé ay hydrocureurs waaw moto pompe yi mën nañu ko suñu bopp. bu doon hydrocureur yomb na jënd dañ koy jënd mais yombul jënd dañu envoyé hydrocureur pour ñu mën ñu foos yi voilà boo bëggee fay chaque voyage léeg-léeg nga def ay 200 voyages dafa metti benn kër rek da nga koy koy manque mën a jël 4 voyages daa yoo xam ne boo jëlee moto boobu manque ko doo am foofu doo defee sa ndox mi. Mhm. foo nga jël foog nga jël hydrocureur pour manque ko benn kër rek mën a jël 4 5 voyages. ñii wax naan mairie mairie bi def ñu seetaan ñàkk xam la wala. bon man yaakaar naa grand yi kenn wax loola ah. dégguma ko fi. xam nañ même bu dul des fois dañ naan mairie bi ñëw ñu war a ñuy jàppale. waaw non ñàkk xam la wala xam nga peut être yenn maire yi dañuy ragal dem si nit ñi pour ñu yuuxoo leen dama loolu. ñenn ñi dañuy bëgg a dem dañuy ragal dem. mais tenir leen itam langage de vérité. waaw mais maire bu si bëgg noppalu xamal nit ñi ne ndoxu taw bi ma si dara laa si mënut mënu si dara ndax ndax du samay prérogative li ma mën daal mooy ñaan yàlla mu bañ a taw. balaa muy taw ma curé su tawee nag indi moto pompe nee na masara moo fi sës da leen sësu fi maintenant boo amee nag matal lu yàqu ñu xool ne accompagner si ay la ak yooyu loolu lañ si mën. loolu mooy prérogative maire bi. voilà donc maire bu bëgg a noppul waxal li ñuy dëgg ñu meral la wax leen dëgg ñu taaj wax leen dëgg et moi je fonctionne moo tax ma noppul man. Madiop Diop la ñuy dalal ci émission gox bi tey fii ci rajo Rewmi FM monsieur le maire euh, waxu inoon assainissement buñ ko toppee moom émission la. daanaka du jeex mhm. waaw. 1917 laa judd fii. Arafat te bi may Grand Yoff fi fi ndox mi di taa ba jumaa ji fa laa dëkkoon. waaw ba si ndox mi laa juddoo. <laughs> kon ma tax wax ndox moom kenn gënu la ko miin. si ndox mi laa juddoo yàgg na fa si ndox mi laa juddoo man 117 ndox mi laa juddoo. ba tey ndox moom moo fi nekk am yàgg na. Ah, yàgg na ah. monsieur le maire daanaka du mbirum assainissement rek parce que itam Grand Yoff yaatu na bépp yaatuwaay bi nga xam ni euh, tey ci fànn yu bari tey ci wàllum euh, infrastructure tey dafa mel ni euh, Grand Yoff tegi na ay jéego. waaw parce que yàlla dogal na ñun bi ñu ñëwee ci mairie bi dañu amoon ay ay priorité te priorité yi bi si jiitu woon pour man mooy tabax maternité boo xam ne day day day méngoo ak norme actuelle yi. maternité Grand Yoff bi ni mu meloon dafay fa jaadu woon booy àqu sax da gis dara bi di xàbbeeku ngay tiit. bon ñu ne dañ ko war a raser defaraat ko ba nga xam ne day mel ni clinique ku fi dugg sentir na léegi grand am na évolution tuuti ñu daanal ko raser ko def fa léegi am na léegi vingt lii lits d'hospitalisation ak ñaari salle d'accouchement ci mairie loolu c'est c'est énorme ça waaw suñu propre moyen ñoo ko tabax ñoo ko ñoo ko construire ñoo ko équipé ñu ne aussi boo xoolee suñu foyer des jeunes bi ni mu meloon méngutu méngutu ak jamono parce que foyer yàgg yooyu la donc dañ ko war a defaat complexe ñu raser ko tabaxaat ko am na léegi benn salle bu cent place ci biir ak benn salle trois 300 places ak benn salle bu 150 places. ok ñu desandi foofu mais monsieur le maire est-ce que loolu yéen a ngi xalaat naka ngeen ko mën a utiliser mairie bi di ci am koom itam. waaw parce que li tax man may ma bëgg def ay investissement infrastructure c'est parce que dama gis ne mënuma jël ñëpp ñu liggéey ci mairie xajuñ si mais boo tabaxee infrastructure yoo xam ne exemple bu dee côté culture nga tabax complexe yenn artistes yi mën nañ fa liggéey di am dara par weer jigéen bi nga xam ne jàngul dafa dem mën na fa dem ñu koy fay di bale ñu koy fay électricien bi nga xam ne bëgg na am bëgg am na métier mën na dem gérer électricité bi ñu koy fay di nga am emploi yoo xam ne dina ko créer. di ko générer waay. loolu moo tax ñu tabax yenn infrastructure yi donc foyer bi tey su paree tey day am communautarisation li fay génn bu mu ñëw sax su mairie may na dem si population nit ñi am lu ñu jàpp di fay ko par peneen beneen aussi mooy stade bi. Ah, euh, euh, kii foyer bi chantier bi fu mu toll ndax noppi na. pare na ah. pare na dañu def foofu plafond bi ci biir mhm. mais pare na. kañ ko euh, mairie bi war a dalloo. bon xam nga après élection ñu ubbi ko mais mais pare na. Mhm. danaa visite keroog. bon foofu plafond kese moo desoon mais mais je pense que léegi lépp lépp jeex na parce que ah. liggéey boo xam ne gaawul. donc te am nañu yaakaar ne léegi rek léegi ñu jot ko. ah parce que. même waa Sorano ñëw nañ fi sax xool salle bi. pour yenn correction yi pour ñooñu gën a maîtriser salle quoi ñun xamuñu voilà donc ñu doon yenn correction yi pour bañ am écho. léegi euh, euh, emploi yi. parce que léeg-léeg itam. pour mooy la suñuy fonds ah, propres kenn jàppalew leen. un franc état Sénégal demu ci. ci budget bi ngeen voté génne ko fa tabax ko. voilà tabax ko 100 pour cent commune Grand Yoff. pour cent commune Grand mais liggéey bi euh, ñiy jóge ca fële parcelle sax ex naa ne jox exemple. ñoo war a mën a ñëw liggéey ci foofu te moo ne ay doomu commune bi dañ koy soxla liggéey bi ndaxam da nga ko tijji ñëpp wala Grand Yoff rek. déedéet mën na damay privilégié waa Grand Yoff parce que Grand sama budget budget Grand Yoff la. balaa nga laax jaay laax lekk balaa nga jël ku dëkk parcelle am na ku dëkk Grand Yoff ba pare ku bëgg a liggéey mais. compétence. doom yëpp la ñuy boole. voilà mais grand am na compétence yëpp compétence boo soxla mi ngi grand F. donc ñun ñu dañu leen privilégié. ensuite ñu tabax maternité gàq maternité xaar yàlla ñu ne waa ville ñoo ko bokk boobu. Hmm. ville moo ñu jàppale foofu parce que ñu ñoo def étude yi fay ko ville moo def construction bi. Hmm. ñooy équipé équipement yi pare na le maire Bar jox nañu caabi keroog donc dañ koy kon su ma la déggee mooy euh, Grand Yoff ci wàllum paj mi santé. am na ab évolution tey. avance am na évolution parce que boo xoolee maternité rek dafa nekk si maternité rek am na clinique yoo xam ne sax amuñu maternité ensuite ñu ngi tabax sami benn benn extension pour euh, centre dialyse sami. loolu ba tey ci. Euh, commune bi wala boobu boobu boobu boobu boobu kii la. waaw ah, j'ai oublié la fond là PACASEN. ok boobu oh, fond PACASEN la mais PACASEN du état bi PACASEN banque mondiale moo koy jox directement les communes. mais yéenay listé seen pour euh, seen li ngeen bëgg. waaw te ba pare sax ba pare sax dafa am ay critères. waaw nu ngeen def ba gagné ci critères yooyu ak yéen nga xam ne kujje ngeen fare ba ngeen ñu leen jox loolu. moo lay wan ne banque mondiale moo ko financé banque mondial xoolul xoolul parti politique day am ay critères yu ñu lay jox yoo xam ne ñu koy wax les CEMO 7 la. boo si bu si benn manqué ñu éliminé la au départ amoon na presque cent ou cent cinquante collectivités territoriales ñu bëri éliminé leen. Grand Yoff génn. chaque année mooy jël paie. lan mooy kii bi. Euh, te bi si jiitu. Ah. mooy foog nga voté sa budget avant fin octobre. avant fin décembre nga war a pare lépp. voté budget yóbbu si préfet tout voté kon kon administratif. avant fin octobre. ak yeneen ak yeneen donc ñu dañu am am une administration bu dure. boo xam ne dañuy liggéey normal Diop caaxaanewul administration. non non caaxaan bëgg ñu ko jiitee ki ko jiitee muy Ibra Dieng xale la ay liggéey yëpp ay xale lañ ma leen nuyu mais pour wax la ne ñun dañuy fonk administration te ay doomu lañ. voilà ay doomu Grand Yoff lañ jàng ba pare mënuñu liggéey bi mu ñëwee la ñu maa recruter ñu yor administration bi fekk 30 ans tey administration bu commune Grand Yoff ay xale ko yor voilà. ñu pare tabax stade. Ah. stade bi aussi ville moo ko defar. ah isaan bi gis nañ leen. ngeen amal fa visit yow ak le maire Barthélémy Dias. di saytu. gisoon nañ la fi nga tukki woon. xool waaw léegi euh, maire xanaa léegi euh, ni ñi def ba ki nga xam ni moom moo di Pape Ousmane Sakho jël but bu gën a rafet ci diwaan Afrique euh, Aliou Cissé nekk maire entraîneur Sadio Mané jël ballon door xanaa léegi da ngay produire yenn doomu Grand Yoff fi itam moo tax. nga jagleel stade loolu lañ bëgg c'est ñun Grand Yoff yàgg na ay kii yàgg na ay doomu ay doomu Grand Yoff Cheikh Kouyaté fi la dëkk kii l'ancien gardien de but de. du Sénégal. Euh, Tony Tony Silva fi la dëkk. ak ñeneen ñeneen. Rose Mendy fi la dëkk. bëri na ay doomu gannaaw yoo xamante ne ay ay ay ay ay. kàngam lañ ay kàngam lañ wël mais donc fii Khalifa ko démarré woon stade bi. Ah. après moom ay problème le maire Soham El jox ñu deux cent cinquante millions. maire Soham ñu koy remercier du ko sant bu baax parce que aussi moom bi nekk maire Dakar tamit jàppale na Grand Yoff. ñoo def ñu deux cent def ko si. voilà deuxième tranche aussi muy euh, trois cent millions aussi. Fra moo ko financé après bi la maire Barthélémy ñuy aussi moom yeggali li mu war a def ensuite mu ne tribune départementale bi ñu demoon xooli fële moo de 300 millions moom moo koy financé actuellement signé na ko ba pare donc stade bi presque li ci dem mot na 1 milliard déjà te pareegul. te ñun li ñu bëgg mooy stade moderne. lal ngeen ba pare de. lal ngeen ba pare maintenant tribune demoon comme côté bi féete si en face autoroute bi. waaw dafa yaatuwul mënoo fa gas tribune parce que wóorul. Mhm. dafa bëgg benn tribune démontable boo xam ne dañuy ñëw posé ko maintenant li des rek mooy def étude de sol bi. xam est-ce que suuf si attan na tribune wala déet. parce que Parcelles Assainies looloo leen dal ci benn côté. voilà nag loolu la ñuy bañ. Mhm. donc dañuy jël benn cabinet d'expertise mu ñëw def étude de sol bi xool est-ce que sol bi attan na wala déet. su ne aatuñu ko rek duñ def duñ def tribune bi dañ koy éliminé. kon euh, bu lépp yembee askanu Grand Yoff wala nawetaan ren mën nañ ko xaar fële. waaw fi lañ bëgg a ah. ñu ngi reyante pour jouer ko fii en dehors ça aussi ñu ne nga def ay yeneen terrain synthétique biir Grand Yoff. mais bi moom bëgg nañ footballé ren nawetaan. mais ñoom dañuy demander trop subvention mais monsieur le maire xanaa léegi subvention bu ngeen koy joxe du wàllum football bi rek léegi nag. non non man sax faru taarum ay joxe subvention man booy dañuy xas ba taay si subvention. Ah, man gëw ma que pour man ma gëm. li ma jox subvention ma tabaxal stade booy footballé li fay gën recette du ko si ASC ak club yi moo solo subvention deux cent cinquante mille daa am njëriñ si ASC mais boo tabaxee stade muy muy générer ay millions par jour. mais loolu mun na dundal club yi. mais ñoom boo leen ko joxul ci beneen wàll gi la ñuy taxaw ŋàññi ko. waaw ah, man man bañ ma ko ma ŋàññi xam nga man moom bañ ma ko ma ŋàññi mais na ma wóor ne tooñu ma la rek. mu graaf yëpp booloon ŋàññi ma te mu wóor mën a tooñu ma garaaw ñëpp ñu booloon tàccu ma mu wóor mën a nekk ma si dëgg damay tiit noonu laa mel man ko ma ŋàññi bañ ma mais mu wóor ne man tooñu ma la te subvention du obligation non non non mais nag boo bëggee dimbal si seen réew. doo leen tàmmal laaj talal loxo doo leen ko tàmmal te ngay tàmmal leen tabax loo xam ne ñoom ñoo ko gérer seen bopp dafay génn si ay fonds démarche si ñoom ñu xam ne ñàkk jaruñu moo gën a wóor c'est comme ça. ñu def culture moo tabaxal leen foyer de jeune bi ñu nekk santé ma tabax ay effaces yoo xamante ne sanitaire yoo xam ne naa mën a fexe ba recruter yeneen boy yoo xam ne am nañu métier diplôme si côté santé mu ñu liggéey école yi ñu ngi koy referaat encore yëpp ñu ngi koy defaraat changé defar aménagement paysager. defaraat porte yi defaraat lépp. te Grand suñu ambition dëgg Grand mooy ay école R plus 1 Grand war a defar école école école zinc. waaw waaw R plus 1 yooyu foo ci toll. non mënuñu ko def ñun amuñu moyens yi. Ah. mais ay projet yoo xam ne nañ ko bàyyi à long terme. moo tax bëgg Khalifa nekk président. waaw ah, loolu moom ponk la dinañ ci ñëw. lool ponk la dinañ ci ñëw léegi euh, gis nañ itam ci Jeux olympiques atum 2026 Grand Yoff am na pàcc bu mu ci war a joué. waaw ndax gis nañ leen ngeen def visite ba tey. Mhm. ak le maire Barthélémy Diaz. Mhm. parce que ku ne Jeux olympiques euh, état dafay jokkaloo wala liggéey ak bu Dakar. Mhm. te Grand Yoff am na pàcc bu mu ci war a joué. waaw loolu tamit projet Khalifa Sall la woon. xalifa demande woon benn terrain ne ma il faut nga joxe ko parce que dañu war a skate park te commune ba ñu ngi koy xëccu te skate park bi amul fenn ab Afrique de l'Ouest à part Maroc amul beneen pays à part Maroc maintenant si laa leen joxee terrain bi après xalifa am totrof su maire soit moo ko yëgale nii waaw soo waat ni moo yëgale projet bi baat aussi ñëw aussi. yëgale ko appuyé si gannaaw donc pour nga doon bu ku nekk jox la cër bi nga am. Mhm. donte ko nekkatu fi ñu ñu dinaa bi amoon pour jàppale Grand Yoff skate park boobu tey aussi day am restaurant am lépp ci biir. ubbeeku la ah pour Grand Yoff voilà donc ñun li ñu soxla skate park bi tax moo xeexoon ba jox leen terrain bi mooy ba amee ay Jeux olympiques ñu bari nañ jóge si àdduna bi ñëw seetaan ay ay ay ay discipline fii. dañ mën a xool Grand Yoff naka la mel sur le plan démographique nag naka la mel sur le plan infrastructure. Mhm. naka la mel si su côté population yëpp dañ ko xool. dinañ xam ne Grand Yoff laaj na ndimbal donc dinañu permettre ñu mën a am ay carnet d'adresse yoo xam ne dañ ko utilise après bu jeexee. pour mhm. Grand Yoff jaar fa développer. ok mais monsieur maire kon dafa mel ni Grand Yoff mi ngi ci dynamique bi nga xam ni. Euh, yoonu dem la. benn mbir mooñ dese mooy Grand Yoff dafa salté. insalubrité. Grand Yoff bi. mooy nit ñi ñoo buggul dëkk bi set parce que ku la fu neex waay laal sa table fu neex waay fu neex waay def sa garage mécanicien. fu neex waaye def sa mbaaru xar def sa mbaaru nag yooyu moo war dañ Grand Yoff très dañ Grand Yoff incha allah dañ. est-ce que am nga ci jàppandalu population bi. no aw ma jàppandalu ñëpp mais am na ñu bëri ñu bëgg loolu Grand Yoff set sëñ na set tey man xam nga problème mooy lan mën nañuy folli ma fal ma ma yooyu tax maa jóg. du question mandat moo la soxal. non non non xamul ma soxal. doomu dëkk bi laa fii su ko defarul kenn du ko defar fii laa juddoo màggee fii yaroo fii ba tey maa ngi fi fii sama kër fa fekk nii sama kër papa la 83 laa fi dëkk ba tey génn ma fii donc pour wax la ne man dëkk bi baax man lay baaxal te su may liggéey Grand Yoff man duma xool ay élection damay xool sama bopp laay liggéeyal. Mhm. kenn liggéeyal sa bopp di tayal di sonn moo tax man du sonn si Grand Yoff moo tax il faut Grand Yoff set loo mën dese Grand Yoff salte na trop. foo ko natt weesu na. ah gars yi de dañ koy bàkkee naan Grand Yoff beneen problème la da ngay jël oto sax des fois dugg bi dafay problème lay doon mais léegi euh, comme yow am nga ambition boobu. Hmm. naka nga jàpp ni noonu nga war a def tey population mu mun a adhérer ci loolu. mooy teg ay projet d'aménagement yi wóor boo xoolee bi may def campagne électorale sama première ponk sama programme mooy environnement cadre de vie mooy sama premier point parce que bi naa ay kii yu bëri. bi gën a am solo bi ñëw mooy tabax foyer des jeunes bi en état civil. bu moderne defar raw naa ko mais dama ko bëgg defar. état civil foofu am na lu ma la bëgg a laaj parce que problème extrait yi. Hmm. problème na léeg-léeg. dématérialisation bi ñuy wax. ci xarale yi hmm. est-ce que yéen. adopté ngeen ci loolu parce que itam léeg-léeg da ngay ñëw man ma am extrait ñu jël sama numéro jox ko keneen hmm. te moo ne buñ ko numériser woon dina indi euh, ay résultats yu am solo mais léeg-léeg problème lay indi ci bi ci ci mairie yi. waaw même bu fekkoon sax kenn informatisé wu ko sax waruñu jël numéro kenn di ko jox kenn c'est illégal. ah fii de day am congolais ñu lay tuddee ah, Ousmane Ba. am na Grand Yoff sax am na fi Grand Yoff am na fi ñu bëri seen xaylu bëri seen kayit di yàqu na état civil bu Grand tegul fenn mais ñun bi ñëwee en 2014 dañu li ñu njëkk a def mooy defar informatisation état de dématérialiser ko ba nga xam ne benn kayit du réerati te ku ñëw dix minutes nga am sa extrait bi ñu ñëwee ñu xool fu fu fu fu fu logiciel bi tolloon ñu gis ne bi xalifa nekkee maire en quatre vingt seize ba deux mille loolu rek lañ informatisé woon donc deux mille ba deux mille quatorze bi may jël maire bi kenn informatisé wu ko woon. Hmm, problème bi foofu la ne. ay documents physiques kese la woon. ok maintenant si laa créé benn logiciel jënd ko. après commence information instant bi eh, dugal naa mille ba 2018 dugal naa 18 ans donc tuuti moo des. Mhm. ay 4 ans 5 ans ñu yegg 2022 mu jeex ñu mën a nekk nag si kii ensuite. ñu norme ensuite ñu bëgg a créer maintenant trois états civils secondaires bii rek moo fi nekk état civil principal. et benn nit muy signé extrait yi moo tax muy métti te grave dina délivrer lu mu dee dee 1000 extraits par jour. waaye c' la commune la plus peuplée du Sénégal je moo tax ñu difficulté. Mhm. maintenant bu ñu amee trois états civils secondaires te deux avant avant octobre deux ubbi benn yóbbu ko service municipal xam ne cité yi fa la ñuy dem. ah cité nouvelle yi yóbbu benn xaar yàlla. donc bii dinañ ko mun désengorger tuuti. Mhm. donc loolu mooy suñu projet te am nañ yaakaar dina si parce que grand bu mucc ayib lañ soxla. Mhm. mais du ay wax rek il faut ñu wàññi wax yi. te jëf traitement di liggéey. waaw wàññi wax yi jëf Madiop Diop mooy suñu gan ci émission gox bi monsieur le maire marché Grand Yoff foo maa ngi ci ay paa yu bëgg seen intérêt bopp ñoo bloqué marché bi. ah bon mais du ma leen seetaan incha allah naa ko tabax. nañ ko bloqué. parce que seen intérêt bopp la ñu ne nañ bàyyi tabax ko seen bopp fu mu am. ñoom dañuy indi maquette. indiwuñ maquette indiwuñ dara mais li ñu bëgg mooy tabax ko jaay seen bopp lañ bëgg. léegi xale yi cantine dañoo dafa day si Grand xale yi dañu sonn ñoo nekk xale di loué cantine pendant trente ans vingt ans dafa metti boo dilee marché boo xam ne rez-de-chaussée kese la woon mais boo ko tafee R plus 3 xanaa lu mu dee dee 100 yu luye woon war a am cantine. mais ñu dañu continuer di luye paa fa nekk am ay cantine pour lan marché Arafat tabax naa ko pare jox naa fa 20 xale cantine yoo xam ne ñu doon luye depuis 15 ans ñu fay ko pendant 4 ans loolu baaxul. oui loolu laa bëgg si marché bi mais dama koy tabax incha allah ñoom mënuñ si man dara tous lañ si mënul dama koy tabax. ndax ah, gis nañ ni ñoom sax dem nañ fari ci beneen boor. mbirum politique lañ ko mujjee yóbbu. fuñ mujjee ne voilà. fuñ mujjee daanuwuñ ñëpp laa boole dootu suuf si dara lañ mënul ci man man de grave moom mu ñor ay xoqatal ak ay mystique yooyu intéressé wu ma nit bu ma si xoqatal nit ñi il faut ñu xam la mooy farata ñu nekk ci dañoo war a dépasser suñu intérêt bopp ñun kese dañuy xool xale yi ak jigéen yi. Mhm. dañu sonn. te léegi marché boo xam ne marché ku fay lu nga tëj kantinam xale bu dog nga yóbbu ko police kantin yi fa nekk yëpp yu si ëpp yéen yéen ko moom lu wee xale yi di leen toroxal rek ba pare ñuy wax marché nga ne doo kenn du ko toj ko tabax te marché baa ngi daanu fu mu tegu jox ñu tabax ko suñu bopp. parce que ku si ñëw yow la ñuy wax. waaw mais dañoo am rapport u protection civile. depuis kañ. am na lu trois ans ñooñu tëj leen marché baa ngeen daanee ko tabax ko signé par tous les membres de cette commission y compris le préfet de Dakar xam na leer la mais état moo deful liggéeyam ñoo jàppale gars yi sous préfet ak préfet ñoo war a jël seen matuwaay indi ay jeunes ñu dégager gars si marché bi mu ngi deful moi je vais lu faire du si du si góobee kat ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo créé violence grave te dañ koy tabax par force incha allah rabbi marché Grand Yoff faaw ñu tabax ko léegi monsieur le maire léegi dañuy dem tabbi ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum élection yi wala laata loolu sax danga mel ni dynamique xalifa Sall nga yor mooy maanaam liggéey moom ma tax a jug ku si ñëw nga jàpp ku si ñëwul nga xam leneen looy def. waaw man kenn ñëw sama tabax Grand Yoff Grand Yoff kenn mu ko tey liggéey koy liggéey de kenn mu si dara kàttanu suñu borom yàlla rek fii yàlla nga may may wér di may may kàttan. Mhm. Grand soppeeku. kenn mënu ci dara à tout prix day soppeeku grand yi daa war a soppeeku amuñu fenn fi lañ fi la ñuy demee marché waaw ñun fi la ñuy jullee fi la ñuy defee yëpp suñu mbokk chrétien yi fi la demee église ku nekk fi nga dëkk donc ñun mënuñu fexe ba grand du soppeeku day soppeeku. <laughs> Euh, li nga wax nii yëpp. transparence moom moo ko war a lal ci lépp li nga xam ne wax ndax mairie ba lii dugg ak liy génn ñu ngi koy set budget ba ak nu mu toll est-ce que li ngay wax nii ci mbébét projet dana mën a antu waaw ah, non xam nga bu dee ay moyens rek moom amuñu ko ñun ñun suñu budget c'est deux milliards neuf cent mooy budget primitif bi mais budget réel bi c'est un milliard trois cent un milliard trois cent yi damay fay chaque année cinquante quatre millions salaire chaque mois chaque mois fois douze maire bi day dem ba tokki de voilà mais ñun dañu am passe-passe am conviction am nañ système bu ñuy liggéey donc wax sa rajo mais am nañ système bu ñuy liggéey ñun projet bu ñu njëkk def ko si kàttanu borom bi parce que foofu foofu suñu conviction toll waaw état mënuñu ñu mënuñu bloqué projet bu ñu yëkkati dañ koy def si kàttanu suñu borom parce que yàlla moo koy joxe waaw yàlla moo lay may kattan bi may la xalaat bi nga xool ne uti ay koom-koom pour defar sa dëkk. waaw lañ koy defee incha allah. ok gis nañ euh, le maire Ahmed Aïdara nee na toog na presque six mois gisul salaire am est-ce que yow mën nga comprendre loolu kii liggéeyal askanam war a jot salaire mu ne jotul salaire. est-ce que naka nga ko mën a jàngatee. comment ça. man de dégg ma ko de indi nitam jotoo ko 6 mois. ah nee na Walfadjri la toog nee na juróom benn weer mi ngi nii presque salaire am gisu ko problème code lay wax code bee moo fa nekk administré démembrement de membrement de non ce n'est pas c'est illégal la loolu légalul ah, loolu jaaxal loolu légalul dañ ko war a fay chaque mois du moom mooy seen yi mooy seen salaire yi te duñ ko fay indemnité xam nga la maire n'a pas de indemnité la am. indemnité la am mhm. voilà boobu dañ ko war a jox moom kooku du yoon kooku kooku du yoon kooku tegul fenn yëfu caaxaan la loolu. ay problème code.